ñun Diamniadio la ñu bokk lépp lu ñu nekk Diamniadio poste de santé bi mairie Diamniadio moo tabax mairie Diamniadio moo recruter infirmier chef de poste bi mairie Diamniadio moo koy subventions..! subvention yéen amul un budget de 2002 à nos jours amul ben 100 francs, boo 15 boo xamante ne dugg na nduxura pël nduxura amul mbedd amul place publique amul dara amna ño xamanteni te maa interpellé l'autorité en l'occurrence le sous-préfet de Mbambilor Marcel Mbaye Thiaw tey ci ñi muy naan responsable am na koo xamante ci diggu yoon bi la tabax tey loo xamante ne doomu nduxura ñeme koo def te su méttee suba mu jaay këram dem euh, nu mu tati euh, Kolda euh, ñibbi ñibbi foofu barki dëmb la fi ñëw li mu am yëpp yëpp yëpp yëpp mu ngi ko amee ci suufu nduxura parce que décret bi lan la wax nee na le pont bi nga xamante ne moom mooy séparer nduxura wolof ak nduxura pël fa la commune Diamniadio yem te village lay wax kon village yu nduxura pël la ñuy wax loolu ñun du ñu nangu ku balkaniser suñu dëkk ku koy def loolu duñ ko nangu tey donc waaye ñu bàyyi sous na ñu bàyyi suñu mënul administrer ni mu mën a nekkee nañu bàyyi ñun ci mairie Diamniadio la ñu nekk tey fa la ñu nekk suba depuis 2002 à nos jours. dëgg la moom yooyu na boppam pont Nduxura Pël foofu la yem waaye li jëlee foofu tali bi joomi soowu sow jant lépp lu féete fii tali bi ci yeen la bokk continuité commune de yeen la. xam nañ ko xamaat nañ ko ndax ñun ñoo daan ànd en 2002 di bind ay lettres di laaj ay audience pour que loolu changé loolu changé wul am na fukki at ak juróom-ñett changé wul kon xam nañ ko nit nag booy wax da ngay wax li am bu ñu réeral nit ñi nit ñi xam nañu fi commune Diamniadio yem ak fi commune yéen yem li tax ma falu woon foofu c'est parce que Ndoukhara amul woon bureau de vote en 2002 ñun ñëpp ñu voté ji foofu loolu moo ñu fal foofu waaye gannaaw gi Ndoukhara Peulh am na bureau am na bureau bureau bi nag ci commune yéen la nekk donc ñun bu ñu bëggee falu wala ñu bëgg a def dara foofu la ñuy voté suñu voté foofu lépp suñuy suñu warugaat ci commune yéen ñu laaj ko waaye nañu nekk fa ñu war a nekk foofu la ñu war a nekk. dispensaire bi 2002 la moo moo jiitu commune commune bu yéen commune bu yéen bu 2002 la te maa ngi wax monsieur le maire bu Diamniadio di sama xarit ma koy nuyu dama yaakaar ne dañ ko duggul dafa. dañ ko abusé xaw ma nuñ koy wax ci ci olof ndaxte du yoon nga jël benn dërëm rek ci sa commune nga duggal ko ci beneen commune te suñuy problème yëpp c'est parce que Ndoxoro dafa am ay conseil yuy wuyoo Diamniadio am ay conseil yuy wuyo yeen mu andi jaxasoo ci biir xo kiiw nin loolu nag pour mu dañ mais nañ ko tegaat ci yoon wi rek nañ ko teg ci sur la légalité